sa diggante ak Bidew wax ji bari na. waaw wax ji bari na nag bari na trop trop trop trop trop ma nekk sama jigéen la sama sista la sama jigéen la sama sista la. ñaar sekku leen dara. wax dëgg fa yàlla moom sekkuñ dara à part milieu professionnel sekkuñ dara sama gaañ la yaayam sama gaañ la sama nit la waaw mais xam nga rek fi ñu nekk mooy loolu moom boo defee gaa yi wax boo deful gaa yi wax. mais yéen ñaar genre da gis ne da ngeen proche. non non parce que yàlla mooy boole ay nit. biddéew man na moom bu ñu demee ba def casting bi ñu xam ne ñu ñaar ñoo ko war a joué dañoo wàcc ba si escalier yi ma ne ko yaay biddéew maay maas il faut ñu joué loo xamante ne Sénégal dinañ ci gis seen bopp. te pour maam mooy déjà il faut moom complicité man ma leen wax dëgg la noonu ñu échangeante ay coordonnées jël sama numéro ma jël numéro ñuy déggante saa waroon.

parce que bu ñëwee day ñëw toog ci man collé ci man mm. damay problème ñëw waxtaan seek man lu mag moom daal yàlla daal mooy mooy boole ay nit yi maag moom ñooy boole ay nit fa bu ñuy toogee dañuy toogante def jéem a créer parce que doo xool ba xool ñun lu ëpp suñu jeu ay jeu de visage dangay comprendre lu ëpp te loolu yëpp seen nit bu ngeen minantewul doo ko mën a jouer te macha allah man moom joué na loo xamante ne pratiquement dafa révélo xale yëpp mm. ñëpp la révélo moo defa des fois gën ci mbéddu bi sax ana biddéew ana biddéew comme laa ana biddéew ma ne ko mi ngi ga mi ngi togg reer ba <laughs> non macha allah nag mu nekk ku bax nak waaw man ngi koy nuyu di nuyu yaayam. Merci de vous abonner à Pikini Production. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.